الله ñeenteel xalif général des Mourides Serigne Abdou Khadr Mbacké moom Cheikhul Khadim moom lañ doon fàttaliku ci Touba yamagoon ñetteelu fan ci weeru septembre atum 2019 diir dellu ci waat ci ku tedd ki doonoon imam diirub dundam gi yépp mi ngi gën gane àdduna guddik ajjuma 1914 ci daarul xalim alimul xabir ndaam toogoon ci xilaafa gi diggante 1989 ba 1990 année bi ñu fi bàyyeekoo njaboot gi yépp nag maase di fàttaliku dundam jàngaleem waaye si yoon wi ngir képp kuy doomu aadama jullit rawatina bokk taalibe yi ñëpp jariñu si si cérémonie officielle bi si Touba bi ñu màggalee ba ca ëllëg sa njaboot gi yëpp teewoon nañu si njiitalu Serigne Cheikh Mbacké xalifam gouvernement bi yebal délégation mbay Ndiaye ministre d'État moo ko jiite waaye tamit mboolem taalibe yi bàyyeekoo diaspora fépp fu ñu mënti doon waaye politique yi ñu si mel ni ñoom Pape Diop doon taalibe si kër gi. te nañu ba si parti ku jéegi ak mbooleem mbokk kër diine yi nekk si Sénégal ay discours nag jib na fa ñu tàmbalee ko si Serigne Mbacke Abdourahmane borom xam-xam bu sell dellu si si ay seede si ku tedd ki ñuy fàttaliku. xew-xew fàttaliku gane àdduna ak Serigne Abdou Khadir di koo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko buñ koy fàttaliku faw ñu fàttaliku gëm yàlla gu dëgër gu dara koo jut ak li gëm yàlla laaj. ci tënku ci ndigalul yàlla yi ak kenn du la séen ci ay tereem waaye rafetal jëme ci nit ñi rafetal jëme ci ñëpp loolu it du lu jamono soxla moo waral kilifa yi di santaane woote bisimil nii ngir ñu nafar dund gaañu baax ñooñu gëm yàlla gu dëgër sëriñ Abdou Khadir ràññi ko na ci lool te suñ jamono ji mel na ne gëm yu yoo xam di daa tasaaroo ci réew mi ba tax nit ñi dugg ci lu ne di def njaaxum ku ne fàtt yàlla seen borom bi leen bind di mooy yàlla di def lu dul noona ndax gëmut yàlla kon buñ delloo see see Abdou Khadir ni mu gëmee woon yàlla danañ xam ne gëm yàlla rek a wóor waaye gëm yàlla rek am njëriñ waaye gëm yàlla rek mooy kiiraay waaye lu ci yàlla it ba nga xam ne lépp lu muy xëcc mbaa lu muy jeñ yàlla la ci yaakaar yàlla aaral ko boppam sàmmal ko mu dund lim dund lépp di mbaax di wiiw ba ñibbi aljanna radiyallahu anhu a jël la waaye jëlit rafetul jëme ci waxtu wi nga xam ne nit ñi jëmu ñaawal ak wax ñaawteef jàpp nañ na moo di ngóor sunu borom dañoo waxoon ne wa qulu linnaasi xusnan nañuy wax nit ñi wax ju rafet wax ci alxuraan yu inna alladina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunia wal axira sunu borom nee na ñi bëgg ay ñaawteef di tasaaroo yàlla ngi leen di négee mbugal bu métti bu yomal xiyamee ak fii ci àdduna sëriñ Abdou Xaadir nag rafetal ci moom la yemoon kàddu yu rafet di wax nit lu baax di jokk ak mbokk di ko dundal kon ku fàttaliku bisam war a teewlu yooyu mbokk yi nañ jël ci ñoom bind bind xam ne li ñuy jariñ nit ñi ñoo ko defal seen bopp te àdduna ab jaarukaay la boo xam ne ñun ñëpp dañuy dem wujj yàlla suñu borom boo léggéey te li ñu doon def fii loolu lañuy seetal boo léggéey kon nañ ko rafetal bàyyi xel la xakim boo waxoon saa su ma di ko wax nit ki fexeel ba boo génnee àdduna ñu lay fàttaliku fàttaliku ku rafet faw ñu fàttaliku la nit ku mën a doon ci lay mujj fexeel ba mu rafet loolu la ñu xakim waxoon wa innama al maru xadithun baadahu fakun xadisan xasan li man waa Sëñ Abdul Xaadir Mbàkke nag jëmmal na xadis xasan foo mën a waxtaanee ci moom diggam ak boromam diggam ak jaamu yàlla yi diggam ak njabootam diggam ak i bokkam diggam ak àdduna ak mbaax rek ngay gis ak yow loolu moo tax ba mu génnee àdduna ak tey fanweer at yu mat sëkk la yu tegal ay weer waaye waxtu wu ne xol yi di a bëgg ay jëfam yu baax di gën di loolu loolu nag mooy royukaay kon sëriñ bi day wax ne li misli hada fa li amalul aamiloon loolu moo tax bi mu sëriñ bi santee sëriñ di mu ànd ak njaboot gi taxawal màggal gi sëriñ baa ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci tàmbulee ko ci alxalifatul am lil muridin cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu boom sàmm ko te dëgëral ko te dooleel ko euh, taxawaayam rafet na lool ci lépp kër gi waaye lépp yoon wi ak diine ji ñëpp di ko sagoo di ko ndamoo di ñaan yàlla sàmm ko te guddal aw fanam mottali ay naalam ndax lim naal bu noppee àddina am jàmm diine am jàmm euh, ndaw bi fi teew sëriñ maam Thierno doomam moo ko jiite ànd ak délégation bu am solo boo xam ne ñii nii teew ci biir mbooloo mi sëriñ bi waaye di sant bu baax nag sëriñ siidi mi sëriñ bi dénkoon liggéey bi cant gi mi ngi koy tàmbulee ci ñoñ alquranul karim ñi nga xam ne ba weer wi teroo ba tëgg ni ñu ngi jàng alquran ci daara yi ci jàkka yi ci barab bu ne ak fii ci kër gi. lépp di aw yiw woo xam ne dañ koo hadiyal sëriñ Abdou Khadre Mbacké sëriñ bàgg leen sant di leen ñaan yàlla di wax ne alxuraan jooju ñuy jàng moo li ëpp solo ci màggal gi waaye di sant borom xam yi nga xam ne jataay yi xam-xam ñu doon nos di ko taxawal ci rajo yi ak télévision yi ak ci kër yi ñoom ñoo àndoon ak sëriñ bi di ko taxawal ci on gu rafet sëriñ bàgg leen sant bu baax di leen gërëm di sant it nag autorités yi nga xam ne di tàmbalee ci sous-préfet ba ci gouverneur ba ca kaw seen i kilifa euh, jataay yi amoon ak liñ leen soxla woon ci màggal gi lañ ci man lépp def nañ ko ci sëñ màggal di sant di rafetlu seeni taxawaay waaye di sant ñi topp seen ginnaaw ñëpp mooy mbooleem kër yi nga xam ne tàmbalee ci meeru Touba ak kilifa am sëñ Abdou Lahad Ka ak màndak moom waaye gendarmerie police ñu yor wàllu ndox mi Senelec service de sen wàllu wér-gi-yaram ñu yëngu ci commerce ak sapeur pompier ak eaux et forêt ak Sonatel sëriñ bi nee nañ ñëpp Euh, gis na seen taxawaay seenu jàpp ci màggal gi mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm waaye mënta ñàkk sant it kilifay kër gi ñi nga xam ne dañoo jaboote ay kilifa te aju ko Sëñ bu Xaadir seen taxawaay yu rafet ak seen njaboot yëpp nga xam ne lu ñu soxla ci màggal gi kenn du leen ci jiitu kenn du ci man ñëwal seen bopp yebal seen i njaboot seriñ baa ngi rafetlu seen tawaay yëpp di sant bu baax mbokk yi nga xam ne sëriñ bi dafa tànnoon ci màggal gi ay kër ngir waajale fa màggalu Sëñ bu Xaadir xool ñoo xam ne séq nañoo sëriñ Abdou Khadre lu bare bari tàmbale woon ko ci njabootu sëriñ Cheikh Asta Walo Mbàkke mu Mamour Diarra radiyallahu anhum sëriñ Mbàkke ne ca bopp ba ñu ngi teew ci jataay bi ànd ak délégation taxaw taxawaay bu rafet mbooloo mu bari teew fa waxtaan yu am solo la sëriñ ba bëggoon jataay bi lépp def na ko sëriñ baa ngi leen sant bu baax di leen ñaanal waaye di sant it njabootu nga xam ne sëriñ Abdourahmane Ñang moo ci bopp ba moom itam bañ fa demee ànd njaboot gi waxtaan fa waxtaan yu am solo ñu def ay berne lu baax lu ñu def ko fa la sëriñ bëggoon lépp am na ko moom itam demoon nit ci kër soxna may moona moom sëñ Abdou Khadir ci kër sëñ baax yi nga xam ne soxna may ak njabootam ak njabootu bu baax Baqi gépp ñoo àndandoo jàpp ca bis ba ba la ci sëriñ bëggu lépp maam ko ci sëriñ baa ngi sant njaboot yooyu di rafetlu seeni taxawaay ak xol bu sedd biñ ànd ak moom ci biñ leen sàkkoo ci ñoom loolu ñu bëgg ca xam liñ seqoon ak seeni waajur ak sëñ Abdou Khadir Mbacke sëriñ baa ngi rafetlu bu baax loolu di xam ne moom ñoom ñoo àndoon bañ tàmbale ba nëgën muy rajo yi télévision yi site internet yi surno yi ñëpp jàpp nañ ci kenn ku ne fa nga ma ne ba lu baax li balle ci jàngat dund sëñ Abdou Khadir tey ku ci bëgg a jot ku ne mën nga cee jot sëñ baa ngi sant ñëpp ci loolu waaye di sant baaxit nag waa tuubaa ca kanam mbooloom am solo taalibe Sëriñ Touba yi nga xam ne moo aynu rahmati jafe-jafe yi amoon ca Baxdaad forage ba ñoo jënd pompe ba monte ko fa def nañ taxawaay yu rafet yoo xam ne sëriñ baa ngi koy sant di ci bëgg di ko teg yoo xool sëriñ Habib mi nga xam ne seen njiit di sant it kilifa yoo xam ne sëriñ bi nee na jàpp nañ lool ci màggal gi di ay xarit ak i wëllëre waaye di njaboot ci kër gi it bokk na ci ñooñu Abdul Karim Fafana di njaboot ci kër gi waaye taxaw lool ci màggal gi ba direct bii di am nii sëriñ Ablaye wax na ko léegi taxawaayu coor yëpp moo ko def waaye di sant bu baax it doom ci kër gi di sëriñ Aramine Mbacke moom it. ku ni màggal gi sa xel dem si kóllëre diggante Cheikh. Mourtada Mbacke ak Serigne Abdou Khadre Mbacke loolee waral njaboot gi yabal délégation Serigne Xaasim Mbacke moo ko jiite woon moom it amal ay seede yu am solo. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina alihi wa wa xadimihi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi nuyu ñi fi teew ñépp ci turu njaboot gi euh, wax nag ci sëriñ Abdou Khader euh, defe naa ne man mii euh, kenn waruma koo dàq waaw ndax moom dafa doonoon koo xam ne ñépp ak njabootam lañ képp ku gëm yàlla tey jëfandikoo ndigal yi di wattandiku tereem ci ak njabootam nga bokk waaye nag waa kër sëñ Mourtada dañoo deme woon ñoom ñaar noo xam ne duñu wan ñaar kenn lañu ndax lu ma sa xew kër sëriñ Mourtada sëñ Abdou Khadir lañ koy wax si moo koy njëkk a yëg sëriñ Mourtada def itam ni nga xam ne bu fa sëñ Mourtada nekkoon mën naa am du ko defee noonu kon lim def ci ak bokk def ko ci lislaam lislaam bi lim ko def bi mu fi jógee nii bi mu fi nekkee ci jëmmam ji ku ko xool gis léppi lislaam bi mu fi jógee itam bàyyil nañu fi ñoo xam ne ku leen xool ndax lépp lu ñuy tudd ci lislaam tudd ci ak njabootam Euh, kon wax dëgg yàlla euh, mënuñu def lu dul bëgg euh, sant waa këram ci topp gi nga xam ne topp nañ ko ay jéegoom man mii di wax nag wax dëgg yàlla def na ci man loo xam ne am na fu ma tegoon kër gi ma dëkk sax yëgalu ko sëñ Mourtada de dafa woo bis rek ma ñëw mu ne ma wool ku ñuy wax Jibril si la ma ñëw mu ne ko demal xoolal ma place boobu mu defar plan bu mu bëgg nga defaral ko ko bañ ne caabi ji mi ngi nii demal nga dugg fa waaw dafa jéggi sëñ Mourtala def ko ba noppi sëñ Mourtala door koo yëg kon euh, ci njaboot wax dëgg yàlla ñëpp la jaboote woon defe naa ne duñu guddal ndax mbirum sëñ Abdou Khadir moom ku ciy wax euh, mënoo wax lu weesu nitug lislaam la woon nit ku bëggoon ku jub la euh, sax ci euh, di ci di ci euh, woor nit ñi wommat nit ñi ba ni ko fi yàlla jóge ñuy ñaan yàlla yokk leeram teg loxoom ci njaboot gi fi nag ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ñun baaxoowuñ di wax sax waaye wax dëgg yàlla lii moom mënuñ ko woon a ñàkk wax muy ay seere ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. délégation gouvernementale monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye moo ko jiite moom it indi si kàddu njiitu réew mi président Macky Sall. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Xaadimu salaatu wa salaam ala wa nabiyana wa mawlana Muhammad sallallahu alayhi rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamualeykum wa sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Khadr Mbacké maa ngi lay indi nuyoo son excellence le président la république Macky Sall pour nga teg nuyoo boobu ci loxo suñu yaakaar toogal fi Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul sëñ Mountakha bu sëñ Basiru Mbàkke bu Cheikh Ahmad Bamba Xadim Rasul di la jox sa bopp yow mii nga xam ne xalifa sëñ Abdou Xadim Mbàkke jox la itam nuyoo pour sa njaboot say rakk say àndandoo say taalibe mais également pour nga jottali itam waa Sénégal yépp sëñ Abdou Khadr bu sëriñ Touba Khadim Rasoul fuñ ko tuddee rekk xel yépp a nga jëm ci suñ borom tabaraka wa taala xel yaa nga jëm ci Cheikh xel yaa nga jëm ci alquranu karim xel yaa ngi jëm ci Muhammad sallallahu alayhi magam ju baax ja lim ko dénkoon fii ci tuuba muy jumaa ji muy imaama yëkkati na jëmmal ci islaam ci diine islaam nde diine inna allah al islaam jëmmal na ko ba kenn ku ne boo nekkee jullit bu ñu tëjee tuddee sëñ Abdou Khadr sa xel day dellu ci yàlla sa xel nekk ci dal lu ko waral suñ borom tabaraka wa dafa tàgge Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca jikkoom sa wayjur bu tedd bi suñuy wayjur suñu yaakaar sëñ abdu Khadr Mbacké ah xolam day kenn mënatul wax après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Bamba ngay wax leneen lu dul moom itam day royukaay la royukaay ci jikko ci taxawaay pour jubal doomu aadama moo tax bésam bu mag bu tedd bii président de la république son excellence Macky Sall ne ma dem fa nga taxawal ma fa taxawal ma fa pour fat pour wax jullit yi rawatina waa kër Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul wante Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul njabootam mooy diine islaam weesale na boppam tarixa Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul moo tax bés bu rëy bii bésu dellu ci yàlla la le président Macky Sall son excellence ne ma naa ñëw feddi lil ko kóllëreem kóllëre taalibe ak doom ci kër gi mais kóllëre également ah koo xamante ne kii xarit la daanaka conseil yu bari ci réew mi dana koy jukkee fii ci sa njaboot gii rawatina ci kenn ci say rak sëriñ Bass Abdou Khadre ah, nga xam ne porte-parole xalif général de mourides nekk koo xamante ne kii njëriñ lu rëy la am ci Sénégal ca dal ba ca dayo ba mais également ca xam-xam nga di ko jëriñ réew mi à travers son excellence le président Macky Sall maa ngi kooku itam maa ngi lay jox gërëmu président la république jëm ci moom euh, gërëm bu jëm ci sa njaboot gi rek ci yow la jëm di ñaan yàlla suñ borom tabaraka wa nga yàgg fi lool te wér mbàkke yow sëñ Cheikh ak say njaboot ak say rak say say tey dëkkandoo say xarit ñun ñii sax ci lañu président la république Macky Sall ci la bokk di sàkku itam ñaan ci réew mi réewu Sénégal bi am Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul euh, sëñ Moustapha fàttale nañu sànq tooyalaat suñu xol suñu xel dalaat ci ne suñu suñu waa ji Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul kenn mënu koo am di tiit walla ngay ngay jaaxle moo tax ñëw fii ci seen ëtt. di ëttu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ay ngëneel la fees del mais bërëbu ñaanukaay la président di ñaan di sakku ñaan nga ñaanal Sénégal yow ak sa njaboot yow ak njabootu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ngeen ñaanal Sénégal jàmm nawetu jàmm te barkeel ànd ak jàmm wante ñaanal itam waa Sénégal xel yu dal xelu jàmm ndax kii ñuy feete tey ah wàcc liggéeyam nekk na nit koo xamante ne kii xol ba day mën nañ ko méngale ñun ci suñu niveau la suñu borom waxoon ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka la laa xuluqin azim moom day borom xol bu rafet la woon yal nañu yàlla taaf ci barkeem délégation bi ma fi àndal wax nañ ko à commencer par le gouverneur de de de Diourbel di sax xarit di seen xarit yéen ñëpp di seen taalibe monsieur mbay ak commandement territorial bi nekk fii ci région de Diourbel wante nekk lépp ci Sénégal ànd également ak ay conseillers ay responsables ay ministres conseillers yoo xamante ne yi ñoom ñëpp ci délégation bi la bokk nga may ma rek man nuyu samay naataangoo ay responsables politiques yi ma fi fekk te kuréelu politique yi yépp a ngi fi toog Cheikh Ahmad Bamba Xaadim moo mel noonu moo jaboote ñëpp moo jaboote ñëpp yéen ñii di njabootam yéen a jaboote ñëpp ñaan yàlla dugal ci xol yi ñu mel ni suñu way jur suñu sëriñ kii nga xam ne royuwaay la jikko yi gën a nekk jikko yu rafet ñu bëggante parce que d'abord ay sénégalais lañu ensuite ay jullit lañu ci ñenn ñi walla ñu gën a bari et ensuite ñu gëm yàlla lañu. bu ko defee yàlla ku ko gëm da koy doyloo te Touba day béréb bu ñuy doyloo yàlla la maa ngi nuyu donc naataango yépp di jéggulu salaatu wa salaam ala seydina wa nabiyana maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullah comité d'organisation si ñoom it amal liggéey bu am solo indi seen kàddu ngir sant liggéey bi ñu si jàpp ñëpp. salaamaaleykum wa ñu ngi nuyu mbooloo mépp tàmbalee ko sëriñ Cheikh Mbacke mi sëriñ xalifa sëriñ Abdou Khadir Mbacke di ko ñaanal sama borom may ko gudd fan gu ànd ak yaram may ko liggéey liggéey yi mu bëgg liggéey sëriñ Abdou Khadir yàlla na ko yeggale sagoom di ñaanal sëriñ Cheikh mi nga xam ne moom la ñu boolee loon ci wàllu liggéey bi di santaane fédération yi nga xam ne ñoo nekk itali Espagne Amérique ak bitim réew ñëpp di wax ci turu fédération Dakar ak bu Touba bu Touba bi nga xam ne Maam Moor Jatara moo ko jiite di sant mbooloo mi ak fédération ci liggéey yi nga xam ne liggéey jàll yépp di soññe ci liggéey yi xam ne ci la jublu rawatina fédération bi nga xam ne naal benn sees ci Bagdad nga xam ne matériel yi liggéey ci année yi passé yépp far ñu ko war a denc di sant daayira yi ak mbooloo mi ak soppa yi ak wëlëri yi xam ne liggéey bi bariwul bari na lii ñaan nag ñëpp jàpp ci ñu taxaw ci balaa ma 6 mois wala plus tard 9 ñu jébbal sëriñ bi kàddu yi di sant mbooloo mi di leen gërëm di leen ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barako jërëjëf. kàddu yi di wéy ba si monsieur le maire de Touba Abdou Lahad Ka dellu si si jëmm ji waaye tamit mu fàttali commune bu Touba dina am taxawaay si màggal bu mu mënti doon. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp kenn ku nekk ci turam ak santam di diiteel ci nuyoo bi nag sëriñ Cheikh Mbakke moom Serigne Abdou Khadir nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëriñ Abdou Khadir di ko ñaanal bu baax yàlla na fi yàgg te wér yàlla na yàlla guddalu fanam te wéral ay cëram ak mboolem njabootu Sëñ Tuubaa di ko jox nuyoo bu sell mu joxal ma ko xalif général de Mouride Serigne Mountakha Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi te wér waaye di ñaanal sama sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad yàlla na fi yàgg te ak njabootu Serigne Touba gépp di nuyu ministre Mbaye Ndiaye mi nga xam ne moo jiite délégation bi jóge ci président de la république ak ñi mu àndal ñëpp directeur généraux yi di nuyu gouverneur de la région. préfet de Mbacké sous-préfet de Ndam ak chef service yi ñu àndaloon liggéey bi yëpp muy police ak gendarmerie sapeur pompier ak mboolem service département bi ak service régionaux yi sëriñ bi kàddu yu gàtt lay doon ndax kàddu yi feddali rek ak taalibe la ak feddali kóllëre ak sant njaboot gi nga xam ne ñun ñëpp sa njaboot lañ danga ñoo boole woon bi bis bi jub ñu dem ci gouverneur de la région ci njiital sëriñ Serigne Sidi Mbacke mi ñu dem ci gouverneur ànd ak moom ci CRD bi ngir li nga xam ne fu bis bu mel nii ñëwee rawatina bisu sëriñ Abdou Khadr mbooloo mu mel nii di fi daje ci réew mi état war na ci am ay responsabilité ak engagement yum war jël ngir rafetal ko ngir sàmm mbooloo mi waaye ngir lépp loo sécurité bi ak yépp domaine yu mel ni moom yàlla dogal nag bi ñu ko defee ànd nañu ak Serigne Sidi dem ci gouverneur def CRD bi am na ay warugar yu gàll woon ci commune bi am ay warugar yu gàll woon ci état bi ci ministère concerné yi ñu àndoon ko di ko dox ba ak ci fii tey kon rafet na rek ñu di la xamal ne Serigne Sidi mi ngi ñu booleetoon mu ànd ak lenn ci njaboot gi ak taalibe yi ñun de xawma sant na ñoom de waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yal na ko yàlla may kàttan ak am xel ba lii nga ko dénk mu mu mu di ko defe nii ñu koy defee ndax nit de bul wolof dafa ne galab bu la sutut du la may ker waaye nit ku neexa a la nit ku neexa liggéeyandoot la nit ku mat jawrin la ci ay taalibe ndax nit bu fekkee ne fu sam xel àggut dana fa àgg loo manqué dana la ko mën a muñal te rafetal ko loo war a def mu teg la ci yoon wi ngay jaar pour war koo am war koo xam ba mën koo def loolu mooy am njàngale loolu mooy njiit te yooyu yëpp gis nañ ko ci moom gis ko ci njaboot gi mu àndal kon nag ñu di la xamal ne rek li ñu li nga ñu boole woon ñu war koo def yàlla dimbali nañu ànd nañ ko moom ba rafet na ba ak ci fii moom nag moo yor rendre compte bi nga xam ne ñun li ñu def waaye lim ñu war a def lépp def ñu ko fi mu ñu waroon a fare yëpp fare nañu ko kon ñu di la sant di la gërëm di la ñaanal nga ñaanal réew mi ci barke Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne lu ne mën na ko ku ci natt sa bopp rek fu ci waa yem yaa ca yem waaye noo ci wute da nga ko ne amee te yow yaay bunt bi nga ñaanal ñu mu ñaanal ñu gudd fan ak wér ak i xéewal waaye mu ñaanal ñu ngërëmal Sëñ Tuubaa ñun ak taalibe yi ñu seqal Sëñ Tuubaa yépp ci liggéey bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kàddu yi ñu tëjee ko bopp sëriñ Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Abdou Khadr Mbacke ñëw lu yaatu si jàngale Cheikh Abdou Khadr jëmm ji.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 la waxoon ca gànnaar daa waxoon ne yàlla sumbi na sama mbalaanoom na ak coona ku ma ko bëgg a solal la ñu solal la ko <laughs> ndax booba tubaab bi de tubaab bi dafay ñëw ne si fokk sëñ bi ñëw te fekk sëñ bi yor ab tànk ab tànk ci gànnaar ab tànk boo xam ne ay fan yoo ne bu julli jotee daal dana yor yàddu yi fexe bu julli si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 bokk yi mu doonoon magal Serigne Abdou Khadre Mbacké édition 2019 ñu ko doon célébrer ci Touba partout au Sénégal mbokk taalibe yëpp teewoon mboolem famille Cheikh Abdou Khadre Mbacké ñu ko fa doon amal cérémonie officielle bi nag bokk na ci li ko teg joxante rendez-vous incha allah dawoon ci beneen jotaayu magal bu Cheikh Abdou Khadre Mbacké ñeenteelu xalif général des Mourides لقير ضر وعدو لم ترزعن ترزعن ترزعن الأمراض سياد البدن ودار بهم